bisimilah mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jaajëfal di leen wax ni am nañu mbégte teew fii tey eh, suñu émission langal na bi comme ni ñu koy defee nag saa ne ba tax na itam dalal nañ fi ndaanaan moom da di ndaanaan di wuyoo si turu Serigne Cheikh. falewul ki doom. Sëñ naga ki doom. gile ma ki safam la daan jox nari gànnaar yaa faliwul naga ki doom la daan jox nari gànnaar suñ bamba nar yang ko naa dee tawaay ka joor sunum réew suñ bamba mbar moo fa feeñ fi ñul fa ah, sama sama sama wajur bu góor mi ngi tudd Euh, mat euh, euh, Cheikh Cheikh Ngom maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ko tuddee waaw xam ni moom ñun ci ci danoo danoo judd ci ci keppaaru maam Cheikh Ibrahima Fall sama waay sama waajur bu góor waay juróom bu bu góor sama maam moo ko moo moo ko yar waaw sama sama góor wii rek ci ci ci keppaaru Baye Fall yi la yoroo ndaxte Serigne Mor Ablaye Fall ñoom ñaar ñoo moo doon wasilaam danga ko ko boole woon moom xam te ni njabo ñun doonoo jaxasoo ci Baye Fall waaw ci waa Kër Maam Cheikh Ibra Fall gën a jaxasoo waaw eh, doon doon nag judd nag fekk sunu waajur doon tagg fi di tàgg eh, Serigne Touba waaw di yëkkati xasida tudd yàlla mu jege mu daal di démissionné bàyyi ñu jël lenge yi rek. fa fas yéene koo fas yéene koo yeggale su doy wolof ma ngi jomal naari gànnaar ya